yitte jooju bu kon góorgóorlu leen ci yitte jooju bu baax rek. ndax seen taxawaay bu rëy bu rafet bii. góorgóorlu leen ci bu baax a baax. bu leen taxaw bu leen geesu. bisimilah bàkke borom Tuuba mbokk taalibe yi waa Cellule Thiès daal man ma noonu la ñu ngi leen siyaar bu wér seen mbokk taalibe sëñ Bamba Jum ñu ngi siyaar ñëpp te di leen jox seen wàccuwaay eh, muy mel ni ñu ngi jub wàccaay wu rëy bis bu màgg bis bi nga xamante ni daara ji dañuy ànd def aw say nekk benn dem ziyaare ki fi nekkal seen mag bi mu Cheikh mu Mountakha ñu jàpp ko le 11 mars bi incha allah wàccaay wi nag mbokk taalibe ñu ngi ci cellule yaa ngi ci réunion yi ku nekk yaa ngi ci yëngu ngir rek liggéey boobu mën a mucc ayib kon nag ñun ñi nga xamante ne ñoo féete Thiès cellule Thiès waruñu cee des ginnaaw kon mbokk taalibe yi ñu ngi leen ci gën a soññ di leen ci gën a woo ñu gën cee farlu ci ni nga xamante ni moo ci jiitu muy wàllum assignation yi waa commission finance tënk ko tàmbalee ca professionnels yi ba ci ki gën a tuuti ci daara ji kon nag ñiy soñ ñëpp ñu gën koo wàcc xam ni. ziaré seigne touba lolu ak tawfiq le gu reuy ci ci ci am mouride naka mag ña daan defé passef bu mag bañ ci daan and nga xam tane seigne bi dañ ko daan fekk ba gannar di dox yegi fas ciona gu nek ñu ca ngir jox ko adiya ziar ko mu ñaan ko nañu and ak pass pass bobu ak yité joju waji de ko suñu bis bu mag bi te xamni kat moy suñu njariñ tay moy suñu njariñ ëlëk kon nañ ci gën a farluwaat baax a baax gën a yombalal waa finance liggéey bi teel a sasi bu ko defee buñ yeggee ca bisma ba allah bu ñu mënee àndandoo wutandoo oto dem maanaam taaral liggéey bi xam ni kat daara mañ ma nooree ni mooy dem ziar Cheikh Mouhamadou Mountakha kon ñu ngi wàcce foofu kàddu yi tey tubaab bu baax a baax ñu gën a waajaat bis bu baax a baax a baax xam ni kat. moom njëriñ képp la waaw jërë ngeen jëf mbokk bi. liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya